jaaree ba yéen nga am jàmm ak tawfeex Solution TV la sa canal la sa chaîne la si kaw nga abonné wu boo abonné noppi nga def sa cloche notification cloche notification naka lañ koy defaree boo duggee si canal YouTube bi di seetaan si YouTube bi di seetaan vidéo bu rus bind s'abonné te mu nekk su vidéo yi ba mu ngay bës boo ko bësee ba noppi dina la génneel benn option notification si côté bi moom ngay cliqué boo cliqué ba noppi dina la génne trois option notification nga tànn ba ba si kaw lan moo tax ma tànn loolu ba si kaw mooy mën a tax bépp vidéo boo xamante ni Solution TV defati na ko rek da am live and direct mu ñëw si sa notification sans autant nga dem di ko wëri loolu notification di jariñ bu ñu jógee si loolu nag dama ne whatsapp rek waxuma gb waxuma business waxuma simple dama ne whatsapp rek tënk wax ji parce que euh, defoon nañ ci vidéo bu yàggul defoon nañ ci vidéo vidéo bi ñu defoon nag ñoo ko defoon ci whatsapp business nak nga si mën a defee sa message automatique et tout genre yooyu noonu boo ko bëggee seetaan moo ngi si suuf description boo si demee rek incha allah rabbi da nga ko fekk vidéo bi nga xamante si ni moom lañ defoon ci whatsapp business buñ jógee ci loolu noonu dañuy ñëw ak yéen si ay truc ay ay astuces yoo xamante si ni yu am solo yoo xamante si ni ñoo koy def ñoo eh, whatsapp moom koy def whatsapp gb dafa am lu muy jariñ whatsapp business dafa am lu muy jariñ whatsapp tamit simple dafa am lu muy jariñ mais dañoo ñëw war leen ay astuces yoo xam ne mën nga ko def si gb mën nga ko def si simple mën nga ko def tamit si business boo bëggee xam la lañ defoon ci whatsapp business bi moom mën nga dem si suuf bi nga dem seetaan ji ko whatsapp gb tamit euh, danañ si ñëw incha allah rabi woon la naka la ak na la mais tey moom dañoo ñëw si ay truc ak ay test solo yoo xamante si ni ñoo ngi ci ñëw léegi waaw kon lii moo nekkoon euh, ñoo ngi daw léegi ni dem seen téléphone dem si téléphone bi wan leen whatsapp bi naka lay fonctionné et tout ça yooyu noonu li ñu leen associé yoo xamante ñu wan leen ko bu ñu jógee si loolu noonu nag xam naa da ngeen ne waaw solution tv moom maayit bu mu yor moom bii lan laa koy doyee bii nekkut euh, Mayatou solution TV Mayatou solution TV bosom moo ngi nii bii mooy bosom solution TV gis ngeen ko mooy bi nga xamante si ni moom laay takk en général da ngeen koy gis sama vidéo yi bëri yi nga xam bu ngeen ko seetaan yi bu ngeen amee seetlu bu baax a baax a baax bi ngeen gis ma takk ko bii nii nag moo ngi jëm ci TNTV solution TV TNTV solution TV TNTV solution TV TNTV TNTV nag la lay lan lay dox TNTV ay ay kii lay joxe ah, comme télé télé web la télé web télé web la ay émission yu am solo yi fa demal nga abonné waar ngi ci suuf description bi boo rombee boo rombee kii solution TV nga xam ne moo jiitu nga teg ci météo officiel bi nga ci teg par doog a ñëw météo TV yooyu yëpp tamit suñu canal la dawal nga abonné aussi bu nga dawal abonné aussi solution TV TNT bi tamit moo ngi dugal ay émission yu am solo en attendant nii météo météo officiel bi tamit ay son lay dugal météo TV bi ay ci ay nuñ oh, dem na maañ ba ko fàtte waaw kon tey léegi nii rek seen téléphone wax ne naka la ak la nan la la nañ daw léegi nii rek ñu daw wan na nan la ak naka la kon sama gars yi topp leen ma moo wan leen business naka la yi kon euh, nga xam ne moom la leen wax léegi ni ñuy def dañuy ñëw dugg directement <laughs> léegi ñoo ngi nii si groupe bi léegi ki ñu bëgg a waxtaan ak ki ñu bëgg a envoyé message moom instant bii nii gisuñu fi message am léegi te moom bëgguñ ñu ko bëgg a message si biir groupe léegi nan la ñuy def ba envoyé ko message si biir groupe bi ba moom bu duggee dina xam ne kat moom mi la ñuy wax ak dañuy def nii ñëw fi nga xam ne fi ngay bindee message <coughs> nga daal di def nii daal def jar gaz boo defee gaz ki nga dalay génneel numéro yi nga xamante si ni yëpp ñoo fi nekk par exemple yëpp si numéro yi nga xamante si ñoo fi ne par exemple maanaam damay tontu kii su ko bindee pare bindee ko sali envoyé ko léegi moom bu duggee rek automatiquement day xam ne kat euh, kii ma la envoyé message ñu wanaa leen ci yeneen astuce yoo xamante si tamit ñooy si biir kii bi yoo xamante ne xam naa ne xawoon na fi mais tamit am na ñoo xam ne xamuñu ko léegi buñ ci njëkk a tànn maanaam bii lañuy njëkk a jël ñu def solution def étoile <coughs> gis ngeen mbind mi léegi ñu mu tijjee léegi dañuy ñëw jëlaat benn encore yëpp ay symbole ngeen bàyyi xel symbole yi nga symbole bi ma bind ah, ñu def ni gis ngeen léegi mbind mi tamit gis nga trait bu dijj bi la def ci digg bi léegi ñu jóge foofu ñëwaat encore encore ba léegi ngeen yëpp tamit ay xeet la yoo xamante si ni mën nga di ko bindee yëpp ay façon la yoo xamante si ni mën nga di ko bindee mooy trois yi nga xamante si ni moom la leen indil yëpp ay astuce yoo xamante si ni mën nga see mën nga see bind say écriture day rafetal écriture tamit am na ci yoo xam ne tamit yooyu ay kii la maanaam wax ah, tesito yi ñoo koy a xam ñi nga xam ne ñoom tesito mooy seen métier ñoom ñoo koy mën a xam pour ñu def nii lii nii genre yi nii nga xam ne chiffre nga nga àggale sa ah, sa min comme nga def dr wala nga ñëw def ñëw def 3 wala nga ñëw kat def F4 F4 yëpp ay xeetu mbind la yoo xamante si ni ah, dañ ciy waxtaan bu baax a baax a baax a baax léegi buñ jugee si biir kii bi léegi fa lañ jëm léegi dañuy génn nii léegi ba tey dese nañ de comme par exemple kii tamit bëgg nga ko tont mais moom dugal na message am nii ngay def te si message bi nga bëgg a tontu te gis ngeen ni may dawale miy dem <coughs> su dawalee day dem su ma dawalee ba nii su ma dangay sélectionné sama baar ma bindal ko message bi nga xam ne moom laa ko bëgg a envoyé par exemple léegi ba tey ñu ñëw message bi dama ko bëgg a transféré euh, transfert moo nekk nii message bi wàccut dañuy xool message bi wàcc gis nga bi su ko bëggee gis ba tey bii moom la indi léegi man su ma ko bëggee transféré naka lay def nii lay def fii transfert la fii tamit symbole transfert baa ngi nii supprimer moo ngi nii en même temps bu fekkee message bi dañ ko bëgg a tontu euh, en privé maanaam si PVM nga ko bëgg a tontee te moom message bi si groupe la ko te même message bi nga bëgg a tontu te moom bu demee si PVM dina xam ne message bi ngay tontu nag ngay def ni ngay def répondre en privé bu ñëwee gis nga message bi nga xam moom laa jëlee si group ba gis nii moom la fa def euh, dafa détecté waale kii bi groupe bi su ma ko envoyé message dana xam ne ni kat kii message bi si groupe bi la ko jëlee tontu ma loolu lay jariñ léegi ñu continuer ba tey ñëwaat fii nii léegi par exemple ñu ñëwaat fii nii wan la ci benn astuce bu am solo comme par exemple fii kat bëgguma ko supprimer nii laay def mu ñëwee fii damay ñëw important maanaam important boo bësee important ni gis nga da ngay def étoile xam nga message bi la laa laa par exemple fekk message bi donc laa soxla ci groupe bi mais groupe bi bëri na ay message yu bëri yu fi nekk te soxla ma leen benn bi laa soxla comme par exemple benn photo boo xam ne am na fi bëggoo kaa supprimer léegi def nga nii léegi ñu wanaale si en même temps boo bëggee supprimer message yëpp taf taf te fi nekk di kii nii ngay def da nga ñëw ba si trois traits yi trois traits yi nga wàcc ba si suuf plus nga bës boo ko bësee effacer les contacts nga cliquer ko boo cliqué tamit gis nga bii mu sélectionné nii bi si kaw bu sélectionné waale important bi boo ko sélectionné waale mooy bi nga bi nga bi nga sélectionné yow boobu da koy supprimer waale mooy étoile bi da koy supprimer waale boo bësee bi da koy en même temps fekkee tamit da nga bëgg a yu bëri nga def nii gis nga dañ génnewaat étoile bi étoile tamit important lay jariñ gis nga ko nii ñett yi la sélectionné léegi dañ supprimer waaye fi ñett yi nii lañ def plus ñëw effacer le le contact bu kii ñëw effacé gis ngeen effacé nañ li fi nekk yëpp ñetti message yi nii nga xam ne ñoo leen defar étoile mooy important yi ñoom dong ñoo fi des léegi bu ñu jugee foofu noonu ñu ñëw fii par exemple si chat yi euh, man kat euh, isati bëgg naa isati mais bëgguma am ko xam ne bëgguma mu gis sama isati naka laay def damay ñëw fii si trois traits yi mu ñëw bi si kaw euh, confident waaw confident ma bës maa ngi jégal nag ma bës fu ma ko bësee nga dafa nekk me contacts mes contacts sauf waaw na avec kii avec léegi bu fekkee kii avec bi nga bës maanaam say say contact kenn du ko ci gis yow sa whatsapp booy setee kenn kenn du ko gis fekkee ne da nga bëgg a kenn dong si ñoom defal ko ko nii ngay def bi ci digg bi ngay sélectionné boo ko sélectionné ini nga dara indi sa contact xamal ne la ñuy nekk sa téléphone yi nga xam ne ñoom ñoo mën a lire say say isati par exemple ñu tànn ki bokk sélectionné ni boo sélectionné bi ngi ngi ñëpp lay sélectionné mooy sélectionné tout nga dindi sélectionné kenn bés boo sélectionné ba noppi nga bés enregistré terminé man su ma esati woon tey jii nii fii ba déwén fii ba toyo fii ba laa mi diin fi jënd ma ko heure bu ma moom du ko gis moom lay jàpp ne man esatiwu man waaw kon tey lii leen leen indiloon seen euh, seen vidéo tey whatsapp nag dafa am ñetti whatsapp comme ni ñu ko waxee whatsapp gb whatsapp business ak whatsapp simple whatsapp business ak simple la ñu utiliser léegi comme war nañ leen whatsapp euh, gb am na leneen lu fi amoon nag mais boo mu ci suuf description bi boo demee suuf description bi da ngay gis yeneen euh, lu yeneen yeneen whatsapp yi da nga ko fa gis mais lii ñu la fi wan nii am na si si ñetti whatsapp yëpp boo si yor rek mën nga ko si utiliser ñu dem si whatsapp euh, gb wan la whatsapp gb moom loolu ëppale gars yi wala tamit ay économes la lay jariñ euh, di gis ngeen ci kaw ñetti école yu fi nekk ñetti école yi école wifi bi moom day tëj par exemple bu ñu defoon ni tëj activé yow léegi moom tëj na whatsapp bi tey jii nii moo ngi mel ne ma déconnecté wu mais ne doo jot doo jot nag message doo jot dara dara dara dara dara doo ko jot parce que tëj nga ko day mel ne ku déconnecté wu rek mais mën nga di connecté wu taal sa connexion di def yëpp mais doo jot message léegi Eh, nañ nañ ko désactiver pour ñuy jot message léegi boo ko désactiver nag si sa say message di wàcc bi si beneen bi nga xam ne dafa mel ne lu jant ni dafay def jant dafa weer léegi man maa ko def nii mu full noir boo ko defee nii day ful noir boo ko dindee nga day def full blanc def na blanc yéen mu defee blanc mais man blanc bi choisir ma ko man su ma nee choisir loolu def ko noir parce que noir moom moo gën a baax si ay bët moo tax man moom en général lu may utiliser noir laa koy def. for moo gën a baax si ay bët daal day wàññi écran bi beneen baar bu si topp tamit gis nga ni moom wàllum recherche lay utiliser beneen baar bu si topp tamit euh, comme yi nekk fële rek flèche bi nga ni gis moom ngay associé a ngi nii flèche bi nii say contact a ngi ni fi ngay xoolee heure yi fi nga xoole say document fi nga changé say thème say thème yooyu noonu système euh, kii whatsapp léegi am na beneen kii bu fi am sew sew boo xamante si ni xam naa ne gars yi ñu bëri ñoo ngi utiliser gb te xamuñu ko maanaam par exemple man am na benn contact boo xamante si ni man damay waxtaan ak moom te bëgguma ni ki ñëw sama eh, bëgguma mu nekk sama accueil sama accueil nii mënoo ñëw fii nii ba gis ko fi te fekkee man maa ngi waxtaan ak moom kooku su ma ko bëggee su ma ko bëggee am nan laay def par exemple kii nii jiitu moom laa koy def ma def nii balaa ñëw see ñëw dama lay woon fan pare nga fii ñu bind whatsapp foofu laay bind foofu laay bës su ma ko bësee su ma ko bësee nii gis nga moom sama di sama empreinte digitale nag moom laa activé moo tax léegi daf may laaj sama empreinte digitale moom laa ci teg mu ubbi ko gis nga fii nii la léegi paramétrage ba paramétrage baa ni nii fekkee da nga bëgg moom bu envoyé message mu ngi ñëw notification mu ngi nii option yëpp a ngi nii son notification vivre transfert avec à yooyu yëpp a ngi nii moom message am bu wàccee automatiquement fi nga xamante si ni fii la nekk nii mooy vivre fii day vivre en même temps téléphone bi boo ko si réglé nag téléphone day vivre nga xam ne moom envoyé na message kii laa bëgg nga xamante si ni man bëgguma nit ñëw sama ak whatsapp gis ko fi te man bëgg naa toujours may waxtaan ak moom ñu naa def damay cliquer nii boo cliquer ba mu sélectionné da nga bës si trois traits yi boo ko bësee nga ñëw ba si suuf nga bës ko nga tijjiwaat fii en même temps léegi moom denc na ko foofu gisatoo ko fi léegi na laay def pour moom gis damay bësaat fii nii si whatsapp bi ñëwaat fii su ma ñëwaatee moom ngi nii gis ngeen ko moo nekk nii léegi man heure heure bu bëggee waxtaan ak moom rek fii laay ñëw fii mën nga fi dugal groupe mën nga fi dugal PV par exemple ñu ñëw wan leen groupe bi même temps en temps rek lépp euh, même kii bi la rek groupe noonu lañ koy dugalee kii tamit noonu lañ koy dugalee amul benn jafe-jafe bu dee whatsapp gb bi tamit whatsapp kii bi business bi wan la naka lañ koy utiliser liñ leen wan ne fii liñ leen fi wan am na lu si bëri am na whatsapp business am na whatsapp simple mais comme nga xamante si ni da ko bëgg a garder en privé di waxtaan ak moom en privé loolu la amut whatsapp business whatsapp business la moo tax dégg nga bañ ne ba dañ ne business day business pour nga mën cee def sa activer say business ak yooyu def nañ ci vidéo mu ngi si suuf description bi waaw tey lii lañ leen indiloon seen vidéo tey di leen di jafal bu baax a baax a baax a baax bala ñoo dem na dañ fi indiwaat tuuti rek wax xamal leen tuuti rek maanaam dañoo bëgg ñun suñuy commentaire yi nga xamante ci yéen yéen ñu ngi koy defal chaque jour dama koy répété chaque jour dama koy wax duma taay di répété lan moo tax ma leen ne ma leen autorisé ngeen commentaire su ma neexoon du ma fi def commentaire lan moo tax ma def fi commentaire yi maanaam yéen seen ne seen soxla yi nga xam ne bëgg ngeen solution TV def si vidéo dama bëgg ma ko suuf description bi yow bëgg nga soli chaque jour yaa ngi toog naan solution naa xaar mu mu def si lii vidéo naa xaar mu def si lii vidéo solution TV yombal na la ko si suuf commentaire bi Euh, dem fa nga bind fa li nga soxla solution TV bu ñëwee dana ko liir dana ci def vidéo looloo tax ma bàyyi ko fa man taayaluma pour euh, liir seeni commentaire de commentaire bu wàcc liir naa ko euh, fekkee lu jaar zem ma zem ko fekkee lu ñuy zem la ma zem ko Ah, fekk lu ñu répondre par message tamit mu répondre par message fekk lu def vidéo la ma def ci vidéo kon tey li moo nekkoon seen ah, vidéo tey di leen di jaajëfal bu baax di leen jox di dig daje seen beneen vidéo incha allah rabbi jaajëf waaw bul dem bala ngaa dem seetaanoon ma ci ñaari benn tànn ma ci kaw maa nga tànn ma ci suuf nga seetaan ko wala boo ci jógee abonné leen ma si bouton bu si biir bu si digg bi maa ngi lay jaajëfal bu baax di la sant di la gërëm si ni nga may suivre eh, sama vidéo yi nga xamante si ne maa ngi